إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم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 ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا تعالى سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أنا آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ولا نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان الرحمن ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم ما شاء الله تعالى xol yi sax dañoo tooy daanaka sax doo bëgg sax jël kàddu wante ñun waa Sénégal war na noo dellu ñun ñëpp sujjuut sajdatu shukri gërëm borom bi subhanahu wa taala waxuma ñi leen jàngal waaye ñii jàng rek macha allah taala mun nañoo sauver réewu Sénégal sauver Afrique sauver adduna bi yëpp mbokk yi suñu doom yi jàng tey ku nekk si ñun ñii bu doon sa sago waxuma nga jur leen waaye nga mën lii ñu mën ndax bëri ñun ñii tey ñu fi toog xam naa ministre moom bokk ci moom defe naa bokk na ka amee waaye bëri na ñoo xam ne ñu ngi fii toog lii doom lii doom yi doon wax dafa mel ni si ñoom lépp ak dëkkoon léegi nag ministre xam naa dinaa ko wutal beneen jour boo xam ne moom day ñoom moom tari ñu déglu ko ak ñoom ak waa nag ak waa ministère bi yëpp la suñu doom ji oustaz macha allahu taala borom xam-xam yi nga xam ne ndeysaan allahu akbar ñoo fexe ba mission wu Jibril alayhi salaam ñu jël ko def ko seen métier moom mi nga xam ne moo doon jàngal si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu fexe ñoom ba nekk ay jàngalekat ah ndeysaan jëmm yi tuuti na yërey oyof na waaye ku dul yéen rek yéen a ko gën ndax ki nga xam ne wa maa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuuhaa nee na xayrukum man taallama alqur'ana wa allama ak a gàtt waaye ak am solo yépp ku dul yéen rek yéen yéen a ko gën moo tax ministre ne ñii ngeen xam ne xëy na mbubb yi oyof na xëy na dàll yi na xëy na mbaxane yi oyof na waaye ñoom ñi gën ñëpp man de weer wi nga xam ne mooy weer wi gën ci weer wi man de dinaa fexe ba jàkkaarloog ñoom tàllal leen samay loxo gën a jàppanteeg ñoom gën a xarintoog ñoom gën a uuf sama njaboot gii ñu ñëw fii ci sama ministère bii soriwul dara palais de république pour ñaanal waa réew ba jafe-jafe yëpp jóge fi jërë ngeen jëf oustaz kan moo jëkk a jàng suñu doom Cheikhu Dia lan la wax moom daa defar affaire bi sax suratu xaj la dugg suratu xaj boobu nga xam ne nag mooy problème mu àddina bi yëpp mooy ñu bëgg a aj te mënuñoo aj bëgg a dem madinatul munawwara te mënuñoo dem ziyaare ji sangu bi loolu problème la kon ñu ngi ñaan Cheikhouna moom ak sëriñam ak waa daaraam ak ñi nga àll ngeen gën a jokku ñaan gi ba yàlla ubbil ñu te wóor na ma ne su ngeen dogoo ci ne ren Sénégal dina bokk si ñuy aji waa Sénégal dinañ aji bi isnillahi taala ndax alquran a mën lépp nga wax ci lu am solo waaye suñu doom soxna macha allahu taala ndate ndate si c'est mon stop moom dafa jël rek li nga xam ne nag moo ñu wër moo ñu war ci fan yi mooy al ashr awaaxir min ramadan mu dugg ak ñun macha allahu taala ci li ma si gën a sentir mooy fi mu naa rabbana maa xalaqta haza baatila wallahi yàlla bindul àdduna bii pour caaxaan ndax sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam avant muy nekk yonant di jóge ca këram ga di dem xaaru xiraa bu romboon mbir yi gis montagne yi gis la xew màkk jàngagul woon waaye mu ngi naan subhaanaka ma xaramta haza baatila xam naa ne yàlla lii neen rek taxul nga bind ko ba keroog muy am iqra ci aaru ci weeru koor nga xam ne anniversaire bi incha allahu taala suba lay doon ci leen toqadar bi yal nañ ko fekkee te xaar ko te luñ si jaamu yal ko yàlla def azar amul xoolal suñu doom jooju li mu ñu jàngal ku ñibbi dem leen ci Imran yéen dañu baara yi xam naa ne yéen tamit ndayu daara yi xam naa nekk leen ca ca ca daara ja rek di yóbbu ay année ki rek fóota ba passé xam naa yéen tamit kaamil bi fi mu nekk day def suñu concours sax ñun tamit ñun tamit ndayu daara yi wala suñu bopp madame la ministre ñun tamit ndayu daara yi dañoo bëgg def concours ana waa suñu bopp et eh, leen Abdoulaye Diagne ñun ndayu daara yi dinañ def suñu concours waaye condition bi nag mooy saal yi ñuy jàng ñun ñoo koy jàngal suñu <laughs> bopp te la du weesu innaa bay naa ko aw fi dina bay naa ko bi gën a tawee innaa asal naa fi leen mu jaxtaan su ko defee ñun ñëpp mu am prix te ñun nag suñuy prix ñun ñëpp laaj leen ma yéen prix la ñu bëgg bi yamaat naa ko ñëpp mu jaxtaan su ko defee si topp mooy suñu doom ji nag macha allah taala moo taal Cheikh Moutada yow xale bi moo defar àdduna gis nga lii mu jàng attention ñun ndey képp kuy jigéen soo tox juraat war naa nekk sa biir bopp bu nekkulee sa biir bopp tey bés ni ki tey soo ñibbee wutal imaam mu firil la ko nga def ko ci sa kaset saa yoo xëyee suba boo nee sa tànk ne alhamdulilah allazi ahyaana baadama amaatana nga déglu firi bi lan la ndax mbooleem lu yàlla di tere te muy daw ci suñu deret muy jëw muy ràmbaaj muy wax yu sa yoon nekkul muy xeebaat yooyu nga xam ne suñu dikko la ñun borom musóor yii aayëb saar bii moo ko rek te lii nag suñu moytuwulee ëllëg moo taxoon yonent bi ne ca al isra wal mi'raaj ba mu sukkoo safara ay musóor dafa jëpp gën a bëri te ñun ñëpp gëm doon nañ ñun waa Sénégal que ñun jigéen ñi bi ñu dugg safara ndax ñoo nekk ci daayira yi ñooy togg ñooy yekk ñooy saraxe ñooy sarax ustaat bi ñooy sarax imaam bi ñooy ndawi daara yi kon ñun ñoo gën ñëpp dañuy nax nañ leen defaraat suñu àlluwa defaraat suñu toogaay gën a gëstu alquran bi ba bu bu yàlla ne man amila salihan min zakarin aw unsa fa huwa muminun fa la nuxiyannahu xayaatan tayibatan wala najziyannahum ajrahum et bi ahsani maa kaanu ya'maluun ñu bokk ci. ci la ministre nekk de. Mhm. bu mu ñu nax nag. du ñu nangu nag ñu nax ñu fii ci àdduna ëllëg yawmal qiyaamati ñuy jëlaat deuxième duñ ko nangu. li ministre di def ci lu baax. li ministre di wax ci lu baax. li ministre di def ci réew mi. wëlbati ko waat fekk waat ci daara ji bëgg ñëw gañ duñ ko mos a nangu dañuy ànd ak moom ci ñaar bi bari na ñu kenn du fi tàcc tey waaye tàcc leen ko dànk rek yëngu leen ko fi a allah takbiir ko imaam nee na lañ takbiir kon nag mu ngoog mbir maa ngi noonu waa Sénégal leen Abdoulaye Dia mu pare concours tari ndayu daara ñetti saar nag la ñuy tari ku ma ko nu jox la biyee maa salaamaaleykum wa rahmatullah. shaytaani rajiim وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يت يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق الله العظيم